mbay mi képp moo fi mën a jëlee ñàkkam xëy ak it màng gi gune yi di ci géej gi di ko màng lii mooy gëm-gëmuk baykat yi nekk ci département du Goudiri rawatina ñi bokk ci groupement bi Thierno Mansour Baro ci village Koulor Ababacar Ndaw mooy seen njiit zone bi département Goudiri ëpp doole gi li gën a am doole mooy wàllu tukki jël gaal yi di dem ñun loolu lañ bëgg a arrêté fere ko mbay moo gën a gaaw a créer emploi ci lépp looy gis aduna mbay moo ko yore bëgg naa ñoo yëngu bu baax ci mbayum dër waaye nag jafe-jafe gu moo leen dab muy mbirum ndox lu tollu ci jooni ak juroom benn téméré garab ñu ngi ko jëmbat ci lu tollu ci ñeen fukki hectare ak juroom ñu ngi am jafé jafé mag jafé jafé ndox lañu am parce que yag nañ ko joyto ndox bi dal mom buñ ko amé mebe nañ fi lu bare bare suñ li ñi ñaan moy président de la république ñu ngi lay ñaan ngir yalla yak sa premier ministre ñu leen di talal loxo ñen jàppale ñu ndax ñu mëna am ndox parce que mbay du du nawet kess mbay nor la ak nawet parce que bo bayee nawet 6 mois yene 6 mois yëpp nga nar ko tok defu lo dara amu lo ndox lol jëmbalé wu réew mi ñun de xoma kenen mais ñun buñ xamone fi 100% ndox bu gën fa ñëwaato da nga xam ne ñu ngi liggéey sans kon bu ñu waxee dañuy def fii maraîchage du mën a nekk ndaxte groupement groupement bi ndox moo sottal ci groupe ci ndox. ndaw ak kuréel gii di ANCAR di xelal ak di leen gunge ci liggéey bi ñu nekk moom mu ngi rafetlu taxawaay bi groupement bi am Amadou Dramé conseiller agricole. boo xoolee nombre bi 1600 pieds des agrumes ñoo fi nekk am na fi forage wala mu am fi point d'eau sax nga ah, mais day dem ba Kulor charrette ko dem jël ko yi ñëw phase reproductive depuis phase végétative bi ba ci reproductive bi nii ñu toll nii toll na ci am doom. lu toll ci ñeenti kilomètres la ñuy def ngir am ndox mu ñu toyale garab yooyu le terewul Ababacar Ndaw ak i ñoñam ñu ngi taxaw ci wéyal liggéey bi terewul nag ñuy tàllal loxo nguur gi ngir ñu jàppale leen ngir ñoom it ñu mën a sóob seen loxo ci li suqali seen gox bu Boubacar Diop Tambacounda Walfadjri